dañuy wax tey ci wàllu politique ci fàttaliku bi ci atum 1974 la ñuy taxaw fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bés boobu la maître Abdoulaye Wade taxawal parti démocratique sénégalais moom nag daanaka mu opposé wu ba 2000 ci lay doora egsi ci euh, pouvoir bi euh, jële fi régime socialiste bi remplacé ko ak régime libéral Sénégal xam benn première alternance politique démocratique loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir yu xew 31 euh, juillet at yu wute ñu dellu si. fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum Karim Wade doomu njiitu réew Sénégal ba woon di maître Abdoulaye Wade moom nag teew ci cour spéciale bu Dakar justice bi di amal ab l'enquête jëm ci am am yu jàpp ni daal moom Karim wadd am na ko toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett million gu ci euro mu doon lu ñu mën a jàpp ni mooy projet gu njëkk gannaaw ba ñu lancé opération bi jëm ci xeex am am yu jàpp ni daal daa lewul li kon donc premier jour procès Karim Wade ma nga xam ne ni jàpp na ni moom ab prisonnier politique la juillet atum 2022 ñu amal ay élection législative ci Sénégal taux de participation bi toll ci 46 virgule 64 pour cent juróom-ñetti liste coalition parti politique bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar am 82 sièges coalition Yewwi Askan Wi am 54 sièges coalition Wallu Sénégal am 26 sièges coalition Aar Sénégal am benn siège coalition Bokk Gis Gis am benn siège les serviteurs MPR am benn siège coalition Natangué Askan Wi ak Bunt Bi ñoom nag amuñu benn siège ci 165 yi nga xam ne nii moom moom lañ taxawal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet atum 1965 si la J.K. Rowling di Joanne Rowling kon gane si àdduna mu doon ab écrivaine britannique moom mi nga xam ni sax personagem am bii di Harry Potter jàpp nañ it mu ngi gane si àdduna ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet. fanweeri fan ak benn ci weer juillet atum 1981 armée bu Sénégal amal ab intervention ca Gambie ngir jàppale président ba nga xam ni kon dañu ko renversé di Dawda Jawara gannaaw ab coup d'état goo xam ni kon ku koy saña def na ko. ñu taxaw ci fanweeri fan ak benn ci weer juillet atum 1974 ndax si dañu taxawal parti démocratique sénégalais secrétaire général bi di maître Abdoulaye Wade moom nag kon ñëw wuutu Abdou Diouf ci nguur gi ci atum 2000 gannaaw ba mu ko dóoree ci élection présidentielle yi. noonee am kon ab régime socialiste boo xam ne rek ab régime libéral remplacé na ko Sénégal kon dugg ci alternance politikam am démocratique gu njëkk ci Afrique francophone Doudou Wade bokk ci comité directeur bu PDS lañ ciy teewlu. Abdoulaye Wade Boubacar Sèye ci signataires yi la Mamadou Bayla Wane ci signataires yi la Fara Ndiaye euh, bi mu ngi jógee ci. pratiquement situation bu ay nit daje muy le manifeste des deux cents xalaat xalaat xalaat ba seen xalaat xalaat may leen ne euh, bind bi ak conférence yi li gënoon mooy forme parti politique ci le président Ablaye Wade annoncé ko Senghor à Mogadiscio ci rencontre bu chef d'état yëpp daje mu def benn espèce li ñuy wax léegi buzz Euh, rajo étrangère yëpp euh, engagé ko ne Sénégal mu ngi am parti d'opposition euh, loolu nag Senghor daj na ci lu nekk ay naataangoom wax nañ ko ci lu nekk mais daal bi wax bi jógee foofu bi ñu ñëwee le 31 juillet lañ ko déclaré donc parti bi am na 49 ans au mois d'août la première semaine d'août le 7 ou le 8 août la ñuy def la première conférence de presse ci Croix du Sud. mais RTS moo fi nekkoon mais conférence bi mën nga jàpp ne Soxna Dieng ak Ahmed Bachir Kounta ñoo ko couvrir ci la parti bi commencé dox ba 1976 mu participer à des élections locales euh, ay communautés rurales boobu temps ñu ngi tester la décentralisation alors bi ñu fa jógee nag ñu politique yu métti yi ñu def ay élections plusieurs fois mais li taxoon ñu jóg. mooy installer au Sénégal un régime démocratique noonu lañ defee ba 1974 ba 2000 diggante bi participer nañ ci ci ñaari gouvernement euh, nga jàpp donc am na euh, lu àgg ci démocratie ba Sénégal ñu di ko limité ñu koy imité di ko waxtaane di ko seet di ko seetlu bu amee ay soox soox sax àdduna bi yëpp jóg taxaw pour Sénégal teguwaat ci raay bi loolu moo xew léegi loolu PDS ak secrétaire général am Abdoulaye Wade ak militant dañ ciy jouer un rôle extrêmement important bu ëpp dayoo. boo xasee nekk PDS rek moom c'est fini parce que dafa am nu mu lay marqué mentalité conception idéologie yoo xam ne doo mën a trouver à l'aise fenn lu dul fii. merci beaucoup ci fàttali boobule euh, Mortala Gaye ci atum 1974 le président Senghor door a door euh, multipartisme maanaam autorisé ay parti ñeent la woon te parti démocratique sénégalais bokkoon ci te maître Abdoulaye Wade taxawal ko. waaw euh, mais nga may ma rek naata ma dellusi ci benn date boo xam ne également dafa marqué ñun ñëpp sunu mbokk journalistes yi parce que. Mm-hmm. ci la ren Marie Diakher Faye. di nekkoon ku nekk Walfadjri nekk RTS nekkoon RTS di yaay ci Papi Aimé mhm. ci la gaañ woon en 2020 le 31 juillet 2020 je pense di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana je pense euh, xel yi peut-être euh, ñu doon yàgg di déglu Walfadjri seen mhm. xel bu waxoon rek euh, ni ni dinañ ci bàyyi voilà c'est y avait une voix quand même qui captait voilà ñaan yàlla mu yërëm ko xare ko àjjana bon fi mu moom da ngay laaj euh, PDS lan moo fa des en fait. Mhm. parce que euh, ki hérité parti bi mi ngi voilà mi ngi mi ngi mi ngi bitim réew toog. Mhm. finalement euh, parti bi sax dundatul. wala buy dund bokk en apnée la nekk donc mu nekk loo xam ni quand PDS ñi fa yàgg ñi ko yàgg topp. les suiveurs du PDS dañuy am lu leen metti parce que quand même y une vie ci parti bi. y avait élection yu ba euh, yu mujj yi def nañ percé de. Euh, mortal ci mel ni mais la ñu bokkoon ci hmm. coalition la ñu bokkoon mais terewul PDS moo ci gënoon fës. ci wàllu Sénégal mais mais ko xamee woon nga xam ni euh, quand même ça transcendait sax appartenance politique. Hmm. parce que un homme moo ko porté woon muy Ablaye Wade am na ñoo xam ne duñu mësuñu jënd carte PDS mais bu Ablaye Wade romboon ci mbedd mi ils sont prêts topp ci ginnaaw. on identifie le parti à un homme c'est ça merci c'est que euh, loolu moo amatul euh, ki ñu koy identifier léegi presque euh, il est sur WhatsApp kenn mënu ko teg bët donc pour man bu ñu doon natt tey PDS mënuñu ko natt ci hmm. un homme boo xam ni Euh, am na carrure am na am na charisme euh, pour vraiment porter le combat du PDS. PDS ba léegi quand un parti qui vit parce que boo xoolee à l' nationale mooy premier parti mm-hmm. d' opposition. même PDS boo xoolee daanaka ñoo leen ëppale ay député. Mm-hmm. mais nu fa duggee coalition. oui mais bon <laughs> comme nu mu fa mën a duggee en tout cas. ba doon jël quand li nga xamante ni moom mooy parti d' euh, parlementaire. Mm-hmm. c' le parti démocratique sénégalais parce que ont le plus nombre toujours là. te loolu aussi te jafe ak li ñu dund lépp quand surtout bi fi Macky nekkee ba léegi gis nga ko Karim Wade c'est vrai que exilé na dem ñii ñu daal leen jël tëj ci kaso bi. terewul ñu génn mhm. mhm. mhm. muy parti boo xamante dafa am jaar jaar Macky mi nekk président tey c'est parti démocratique sénégalais ñoo ko meññ ñi fi nekk tey di xëccoo mi ñoom Idrissa Seck en tout cas figure yi ngi fi activistes yëpp yi nga xamante ni ñoo fay nekk aussi ci centre parti démocratique sénégalais loolu dundee ku mel ne Ablaye Wade kam ñu ñaanal ko encore une fois parce que semaine passée on a appris que ñëwaat na ci Sénégal yàlla mm. guddal fanam yàggal taxawaayam ngay dem ci village yi wala ci biir région yi itam foo mën a dem tamit fa gis ay paa yoo ba léegi ñoom c'est le PDS moo nekk dans leur sang muy parti mm. boo xam ne que organiser waat ko atum 2024 ñu dëggal mais quand même c'est boo xam ne ak histoire am histoire bu intéressante la parce que fi Abdoulaye Wade jaar ak moom comme ni ñu ko waxee Senghor ak tam ni mu doon naxanteeg moom hmm. c'est pas pour rien que doon ko wax njombor et njëkkee ñu en 78 ñu organiser élection législative boo xamante gars yi commencé di rompre député yi ñii di dem et mais quand euh, am na histoire bu am solo boo xamante ne je pense que gone yi war nañ mm. ko gën a xam roy si surtout ñuy def politique actuellement surtout histoire politique c'est important mm. ah, mm, ñëpp ñoo nekkoon ñi njëkk a formé en tout cas parti bi après nag génération yu bees topp ci merci Chérif dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane